mooy feebar bi nga xamante ni moo tiital nit ñi lëmbe àddina bi loolu moo nu fi dajale suñu président chambre des métiers am initiative yu baax a baax ànd ak ay partenaires am tey def loo xam ni euh, pour ñu mën a xam naka la ñuy moytoo feebar bi ba nga xam ni secteur artisanat bi dinañu si yëg seen bopp am si ay taxawaay yu rafet yoo xamante ni feebar bi danañ ko mën a moytu xam ne nu koy moytoo moo tax tey président jël initiative bi def lii indi fi produit yi nga xam ne tey moom te feebar laaj set mu indi fi produit yi nga xam ne tey pour naka la ñuy seetee naka la ñuy laabee ba nga xamante ni feebar bi du dugg benn artisan te du dugg kenn tamit léegi loolu mooy li nga xam ne moo fi dajale tey. ànd nañu fekk sunu ay partenaires allemands yoo xam te ni ñoo. def lii dugal si deux millions yoo xam ne tey ñëw na fii si département de Mbour ak Joal ak Niani tay ñoo loolu la partenaire yi def kon loolu mooy li nga xam ne moom la fi def. ah séddale bi nag ni moo demee mooy euh, comme am na ay cible yoo xamante ni artisan yi nga xamante tey moo tax euh, affaire bi jóg. tey mu nekk artisan yi nga xam ne toujours par exemple su ma doon jox exemple dama naan lu mel ne mécanicien nga xam ne su wàccee dafa war raxasu menuisier métallique menuisier bois aluminium euh, coiffeuse yi. tailleur yi ñooy ñëpp tey daf leen kii ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy def céréales locales yeeg yooyu yëpp comme artisanat dafa ëmb lépp corps de métier yëpp dañ ci bokk moo tax ñooñu ñëpp danañu fexe ba nu ba nu ba nu ci ah juróom-ñetti yi nga xam ne tey moom la ñu ñëw pour former leen pour ñu xam naka bu ñu demee si atelier yi war a yóbbul euh, chef d'entreprise yi nga xam ne tey ñoo nekk si si si département bi bu nu demee di ko yóbbu ñu xam naka la ñuy euh, waxanteeg ñooñu ba nu mooy moytu feebar bi nanoo moytoo feebar bi tey mooy formation bi nga xam ne tey moom la ñu bëgg defal xale yi nga xam ne mooy ndaw yi fi teew former leen jox leen ñu fekk nit ñi si atelier yi yóbbul leen bagage yi comme ça ñu xam naka lañ koy moytoo. ah waa xam nga loolu li ko waral mooy bu nee département de Mbour rek eh, tey dafa ëmb lépp. tey dañu ko dagg sax ni Joal mais bu nu woon département de Mbour rek ñun su paree dañuy jox Joal jox dëkk yi nu wër yëpp. tey moo tax li nga xam ne moo fi ñëw département bi yëpp dañoo si yëg seen bopp ndax dañ koy tas dem ko même ñu nu tuddul sax dañoo fexe ba nga xam ni danañ ci laal. Ah, askan wi li ma leen di wax rek mooy feebar bi moom du ay caaxaan du ay fo léegi dafa nekk euh, feebar boo xam ni. lu ñëpp ragal la te réew sous-développé la nekk nit ñi amuñu doole joo xam ne mën nañu faj feebar bi moo tax moytu bi mooy c'est la meilleure solution moytu mooy li xam ne moo gën ndax am na noo xam ne bu fa yeggee tey euh, Sénégal day am problème nit ñi am problème ñu ne état bi def li mu war def te fekk na état bi def na li mu war a def léegi nit ñi ñoo war a moytu moytu rek mooy mooy li koy faj amul leneen loo xam ne mën na faj feebar lu dul moytu lu ñu digle ñu def ko li nu tere ñu bàyyi ko loolu mooy li nga xam ni moom la feebar bi laaj.